Assalamu alaikum, je la Mamadou Seck président des alliances pour sa localité euh, coalition Diomaye président Nous sommes waaw bon tey dañu pour soutenir suñu frère Mamadou Lamine euh, coordonnateur coalition Diomaye président département Nyoro bon dafa woote woon pour sargal les ex-détenus nous nga xamante ni combat bi avons def na euh, ñu ñu arrêté woon leen ñoo ay métit yu bari yoo xamante ne dundoon nañ ko ci arrestation boobu noonu donc euh, ñoom la woote woon tey pour sargal leen moom ak waa magu Pastef département donc mu woo ñi si ñu rafetlu woon trop événement bi raison pour laquelle ñu bàyyi suñu jité yëpp ànd ak suñuy ñooñ suñuy mbokk suñuy sympathisant pour ñëw soutenir ko. waaw au fait euh, délégation bi moom damay wax ne souvent ne que rek ñun dañu bokk gis-gis euh, bokk ay ambition am loo xamante ni gis nañ ko ci projet bi biñ ko taxawalee depuis solution Bataille, ñu nek di ci geussu di ci di ci am lo xamanteni ñu ko ci dem ba gis ci suñu euh yalla def euh, au temps opportun wala au moment voulu Nous dugg ci coalition jomay Président liggéey ci pour que mo am changement dans le département de Nioro donc euh, ci même dynamique bobu lañ nek rek di pour que au moins projet bi ñuy dégg am au niveau local parce que projet bi aussi dafa am déclinaison locale déclinaison locale donc euh, bëgguñu rek ñu ñuy toog Dakar di dégg projet projet projet dañoo bëgg ñi nga xamante ne dañuy yeewu ci département Nioro ñu sentir ñoom jeexital ci seen dund ne projet bi ñuy wax de lii suñu dëkk lii la fi indi ñun ci loolu lañ nekk di liggéey donc képp koo xamante ne da nga nekk ci coalition Diomaye Président nekk ci dynamique boobu noonu am lo xamanteni japp na ne war nga ko mën def ci ci projet bi liggéey ko au niveau département bo woté dinañ ñëw taxaw lépp lo xamanteni ne mën nañ ko dinañ ko def budé xam-xam la dinañ ko def bu participation la ci euh, comment dire élaboration euh, vision stratégique bi dinañ ci nek bu suñu doole la dinañ ko ci def bu aussi luñu amass amas luñ ci mëna a yokk dinañ ko ci yox donc ñun loolu lañu nek euh, ci di liggéey actuellement ci projet bi. non même pas même pas même pas au fait xam nga yalla dafa def organisation bo gis dafa am lu mu tëddee moi j'ai intégré la coalition Diomaye Président avec mon mouvement Alliance pour sa localité. Euh, tey bi ñu wootee fi jël parole représente euh, une entité au sein du PASSEF ou bien au sein de la coalition c'est très normal c'est l'ordre protocolaire man bu peux doon jël bu au nom de la coalition Diomaye Président parce qu'il y a le coordonnateur départemental de la coalition Diomaye Président qui est là Il y a le coordonnateur communal de la coalition Diomaye Président qui est là a donc ñëw moon pour jël parole dama ñëwoon pour répondre sama frère bi nga xamante ne kii daf ne woo leen Mamadou Seck ñu woote man ak heureuse jour boobu sax man maa ngi Dakar mais logistique bi ñu yoroon à Nioro dañ ko jël mettre ko à sa disposition ñu jël sioné département bi donc moom yàgg nañoo bolé du tay mu ngi wax tout à l'heure lebalanté la rek nekul man mako jëkkal lebal lebalanté la yeg yeg la parce que yeg yeg yeg yeg, mo koy fay donc man dans ce cadre là ñëw ñëwuma woon pour def discours buma ma pour def discours ko on allait régler ça avant may déplacer wu mais ñëwuma woon pour def discours dama ñëw pour taral bés bi parce que man ak mom dañu bokk lu ñuy xex dañuy xox pour que coalition Diomaye président euh, am nous mu taxawee ci département bi parce que ñun dañoo xex li koy wax tout à l'heure dañoo xex am mérite parce que am ñu fi nekkoon nag ñu ngi quoi qu'on puisse dire ñun on a soldé un compte ak Macky Sall mais quoi qu'on puisse dire dañu am suñuy mbokk yu fi nekkoon suñuy mag suñuy papa suñuy nijaay suñuy mam amone fi ay responsabilité ci nguuru Macky Sall ci Benno Bokk yaakar amaloon njëriñ seeni mbokk amoon njëriñ ci dëkk bi quoi qu'on puisse dire loolu dafa am c'est une réalité on peut pas être nihiliste